Xaasim na ngeen def. maa ngi sant yalla jam ini ci jàmm. Alhamdulillah. ngi ci jàmm ñu ngi sant yalla alhamdullah alhamdullah euh sonn sonna vraiment sonna la gis nga mbir bo démé ba amatoo ci personnalité amatoo ci fulla amatoo ci fayda ken respecté tu la war nga xoolaat sa bop man dem na ba sakuru suma ko yónnee day bañ sakuru respecté tu ma sakuru suma ma ben benn mu ne ma fukk à cause de père dañ may yónnee ay laaj. di ma yónni ay ay ay ay kaani di ma yónni ay ay Dakar lu ne lañ ma yónni man nag mënu maa bañ a dem parce que contrat boobu maa ko validé woon man man maa ne woon nangu naa doon mindaan amul problème parce que gis nga liggéey liggéey la mënul weesu liggéey mais problème bi mooy fi mu toll nii lii jot jot na ko waa man nangu naa nangu naa liggéey naa ba fii vraiment dafa am ñu ma yaakaar te man su ma daan dem dama yëkkati di may ay nit. ña ma doon may sax fi mu toll dama leen làqatu ndax aw ma lu ma leen may mais comme aw ma lu ma leen may man naa am lu ma yóbbu man taratuma ña ma doon may fi mu toll nii lijjanteetuma leen mais man naa am lu ma yóbbu làqatu naa làqatoo làqatoo làqatu ba mënutumaa jaar ci benn mbedd ndax ni ñi dañ maa yaakaare woon comme yow tas nga sama yaakaar indil ma nit mu jige ma doon mindaanam man nangu naa doon mindaanam mais vraiment je ne marre quoi sonn naa comme des na quatre jours nag na dëkk Libéria quoi ma jël moo bi mën a dem julli loolu laa bëgg nii quoi sinon bu deful loolu man dinaa jël contrat bi xam naa ni ma war a def nga delloo ma sama xaalis man ma jël loolu dajale ko dem su ma demee bu ma jullee ba pare man après dinaa xool neneen nu may doxalee bay mën a régler sama bopp mais vraiment metti na metti na mais nag garaawul waaw li ma bëgg daal mooy nga wax ko mu jox ma sa comme fi mu toll nii quatre jours moo ci des mu libéré ma ma mun a def samay affaire parce que il faut ma yóbbante ay ñaw ay yooyu pour bu ma demee man li ci des ma mun koo gérer loolu daal laa bëgg quoi. waxal ak mom mu libéré ma jank saaj nga de taxamoo jom lu soyoon ci sama saaj ak ñàkk saaj moo woon xuloo ma tey en tout cas daal sa tëyër naxu dinaa ñëw nga yóbbu ma sa tëyër mu defal ma yu baax yi lay defal am na muy waaj sëy si yow tamit nag yaay sama doomu ndey man sama tëyër du ñëwal gaje ngi du ñëwal fàkk la jant yaa ngi mer de yow da ngaa dof wéroo xam nga lan laa bëgg tontine bi laa soxla moment bi ngeen ma koy forcer soxloo ko korité gi bientôt sama xaas laa soxla la lekk wala moom la lekk loolu sama doomu ndey yaa ngi dégg te loolu dama la koy teggil sax parce que xam naa ne sama xew bi moo tax ngay teggi defal ba mu baax loolu bul wax dara yow ñoo far man su may doomu ndeyanteel ko am sutura laay doomu ndeyanteel yow maf bi nga ma tëggal nga ne man ngay yàq yaay baaba ja nga ne man ngay weer man ngay wili pande man ngay doomu ndeyanteel parce que dafa loo bëgg eh arrêtel sa bopp ngay nax non jànq yaa ngi mel bëgguma nga mel nag kër ga pour nga xam ne yow doo fa dugg nga génnee ko sa bopp bi nga <laughs> effacé ko sa cerveau bi man maa ki samp man maay ki samp ndënd teg doo fa dugg bu dee cung la kenn du ko tëgg bu dee mbëng-mbëng kenn du ko tëgg cool bi dama koo jëlale nga may sa bopp jàmm ak mbokk pare nga nga koo nax ngay wër man sama nijaay doo ko nax wuy ma teggi ma sa der man maa fay daagu nag mankan kunkan bi nga doon bi ngay wooyee euh, gis nga yow ngaar tay ma wax ak yow nag yow soof nga réew nga dof nga yëpp nga ma yow yow bis bu ma li di diglu ngay wax ak man terme yi nga yor ay Libéria ay wereeg ay Gabon yow ni ngay waxe ak man moo ma njëkk man ci mag mu tol ni man yow da ngaa yaradi quoi da xamadi de te bis bu ma la wonee sama xamadi nga xam ni maa la gën a rakkaaju li ma lay yëgal nag bariwul yow daanu nga per récupéré na la boo daanoo da ngay xam ne da ngaa daanu per yilifoo ko de moom moo la yilif employéem nga comme ni nga ko waxee mbindaanam nga buñ la yónnee Dakar da ngaa war a dem buñ la yónnee Benqal da ngaa war a dem buñ la yónnee Netatu da ngaa war a dem sa diggante kooku ca des nag sa ex employé boobu nag sama yónneeku ci man yooyu intéressé wu ma ci yooyu intéressé wu daf lay liggéey loo nga koy liggéeyal bu jotee mu fay la. dafa jot dafa jot. noo jotut parce que nee nga ma léegi ñeenti fan moo ci des. waaw léegi ñeenti fan lan moo ci toppaat. waaw waaw ñeenti yooyu ci des nag yow est-ce que xam nga ni yow sama contrat de location ak yow ñeenti fan a ci des vérifié naa ko bi yow quatre jour moo ma desee ak yow nga libre ma libre dootoo ma tënk parce que fi nga ma tënk ci location mi ngi may bëgg soof da ngaa xamati ah, da ngaa ma di dangaa réew et yow gaari gaari bàyyi waay damaa woor waay damaa mar waay tey waaw bàyyi ma waay ndax xamul tax gis nga baadoola moom baadool rek la mën a doon yow yaa ngi dem récupérer sa sa sa nijaay jabar indi ko muy jaay di la jox ngay lekk léegi nag yow man nga jël xalab ma billahi dina ma fay ci nii wala ci naa wala ma yëngal man maay baadoola yow yaay baadoola jógal dem eh, loolu jógal dem da ngaa dof dem jógal jógal jógal ma xaram nga rek lay yaay doome xaram rek Eh, eh, eh, ada ada nggak mana ya waaw bëgg naa tey nii. xam nga gis nga indi naa lu mat juróom-ñaari ganaar ci biir. waaw waaw waaw juróom-ñaari ganaar. waaw nañ leen suqi defar leen. bu leen suqee defar leen mariner ba ndugg mi lépp a ngi ci biir. nañ leen togg ba mu rafet. saaku pombiteer bi des na lu toll ci juróomi kilo. yépp anu xolli ko saaf ko defar ko jël soble defar bu ci kenn jaay dara. ah ah. ah bu ci kenn jaay dara defar naa ñaari capteeri duté mhm. ak was waaw bu ci kenn jaay dara gouverneur waaw gouverneur bu Thiès moo ma wóolu ba ma mu commande ma rier ndax président de la république day dem dar hmm. te day jaar fii Thiès ci moom fi lay réere hmm. ndax dégg nga ma waaw dégg na ah, kay dégg naa waaw te moom soxnaam soxnaam soxna président moo woo gouverneur ne ko dégg naa euh, loxo per bu xar bu sax ba ca Thiès mu ne ko waaw mu ne ko moo ñuy jaay reer dégg nga. waaw ayca. kii waaye kii maam Serigne Diop commandé woon na benn ginaar de. déet du am du mën a am. Ah. du mën xanaa suba. kun ma wokk ko ko jeex na. waaw woo ko rek ne ko jeex na. baax na ko ne ko jeex na ne ko tey ganaar daa nekk pénurie. waaw waaw am pénurie pénurie mooy maanaam ti amul. waaw ganaar et en pénurie. ginaar jeex na tey jaayuñu daal. waaw waaw ganaar en pénurie. baax na waaw kay wax ko loolu ay kon ayca waa demal ayca. ayca ca biir ayca. te plan yu bees yooyu may indi woon. waaw raxas leen yëpp ba mu set wecc après ngeen paqueté len ndax moy dem. d' accord acca. waaw. na gaaw. Eh, defaraa leen baraada warga ataya d' accord waaw attaaya. waaw. man damaa to liggéey yow quoi. mënatoo mënatumaa liggéey parce que li dafa metti dafa metti liggéey té do yor mo metti man nangotumako nangotumako tay nangotumako euleuk nangootuma ko ëllëg benn rek moo yor pour lan mais ñun ñep ñoy liggéey liggéey doo dara da ngay benn place ñu liggéey bay bëgg dé té do doo doo yor tous duma ko nangu tay duma ko nangu euleuk dama bëgg ngay génne mënum da ko teg ci ci côté ñun ñep ñuy am mais lan la dafa metti dafa metti quoi eh dafa metti dafa metti trop duma ko nangu tay duma ko nangu euleuk eh waaye xaa da ngay tux bon légui tuxuma dara dama sonn naanoo dara naanu ma tus kon yow nii nga ko gisee dal waaw léegi dàq naa la. kan yow munoo maa dàq parce que sama contrat jeexagul munoo maa dàq da ngaa xam man jéem man yëpp damaa xam nu mu demee munoo maa dàq munoo maa dàq tey doo ma dàq suba. yow contrat exclusivité nga am di. waaw dimbali ba nga am exclusivité. di la